préparé préparé bi ñu def modi xalé yi fay théâtre yop euh, am le Phénix am les rescapés am ñun ak ñom am euh, ndekete yu ya plein de troupes yo xamni lu ñuy nas dañuy ñew set ñun sax dañuy jël suñu jëm wala jël bokk ci bureau ba que pour jëmbal leen bu ñu demee seen kayit yomb leen ak buñu leen mëne mënee wutal si ONG yi ak euh, partenaires internationaux yi ñu boole leen ak ñoom pour ñu mën leen kii ñu ni ñu est-ce que tante buñ ñu ko defee ñu may sa jëmm ñëw sax nekk bàjja ma ne pourquoi pas ñu def ay pilote ñu jël ñu yónnee ñu ngi koy yónnee mais di dañuy yónnee affaire yi pour xale yooyu kenn duñu tontu ñun bés boobu tiitaande gi ñu dañu tiit taxaw sans voix ku nekk naan sa morom c'est pas vrai loolu mënul ne dëgg comme si ndeysaan il n'a même pas le droit un jour ni moi ni de non bu Non, waxati loolu loolu mënul ne mënul ne après nous ñu daal di gis 2S image mais là on était de marbre de on a wax rek nous dégg malal def un démenti mu un un ouf de soulagement parce qu'on a besoin de lui c'est une bibliothèque c'est quelqu'un qui est très fort en communication quelqu'un qui un bon journaliste, doublé d'un bon comédien. Et puis c'est une personnalité de la ville. Oh, lui a besoin de Goldberg. recevoir pour et il a vraiment le verbe facile il a de la présence Machallah, machallah, Il y a le quand même même s'il ne va pas bien même moi qui vous parle il y a des moments où tu sens que la les forces les grandes forces ne sont plus là parce que c'est l'âge mais tu sens que la tête elle est là et que luñ la improviser loo wala luñ la waxloo xam nga de quoi tu parles donc on n'est pas sénile donc on peut encadrer ces jeunes là mais faudrait-il qu'on ait des moyens man ci ñom lay dem ba paré man biñ leen jëlee recaser leen ci ben fu sore ndar dal kër xaar yalla kër Cheikh dafa am ben ONG bu doon ñëw di leen seesi wa Lions Club d'ailleurs

et puisque c'est pas une petite affaire c'est de grands grands moyens Macron ñëwoon na fi ñu waxoon Macron dafa war jàppale pour ñu defaraat berge joxe financement mais après d'autres qui ci euh, ce qu'il faut et puisque man je suis un petit peu loin <laughs> loin de la politique mais je je suis les choses C'est euh, de bi Bok Nous, ñun artistes dëkk bi la ñu bokk mais on n'a pas droit ne sais man si je ni ma gisee loolu fii laa far wala wala wala fale la far mais ku ñu ku yàlla indi teg la man contre naa nga ni cere ji lekuma ci dama ci xep suuf moi je suis en train de tout faire j'ai écrit j'ai écrit un chant de l'émergence que j'ai donné aux femmes qui font le fanal. Elles le chantent partout où elles vont. lan mooy émergence boo bëggee ni yow da nga sa dëkk émergent lan nga war def lan nga war moytu Galgi, gi ko war c'est des termes qui sont propres à tout le monde ça m'appartient pas tout le monde en parle mais da ngay da ngay seet ci ñoom ni ñuy faral waxee nga wax di mais malheureusement aucune radio ni aucun truc n'a n'a pris mon truc j'ai fait des spots sur la paix parce que loo gis mo moo ko on ne peut pas parler de tout ça sans parler de la paix. parce que c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse accéder au développement avons wax le gaz ba nous di ça c'est passé du simple au triple alors que nous, amaguñu ci kër hein. le théâtre paie bien son nom actuellement et les films mais nous on n'a pas eu cette chance là du tout man tok na ñu ne ma da ngay jouer tel rôle mané bobu duma ko jouer ndax gisuma ci sama bopp et puis gisuma lu mu meun avancer sama dëkk lélé léeg ñu ma da ngay def tel publicité def nangam mané non je ne le fais pas parce que j'aime pas li ngeen ma par exemple c'était une boisson man leen neexul ne mën a bu ñu xóoyal duma ko naan kon duma ni nit ñi naan len ko aji na moto dama ko def ay bëgguma woon da ngeen dag fofu dañ ma jox ben <laughs> jëkkoon xew ma tourner ko ñu war def ay PLV ci diggu tali bi waroon ma fay ay millions pour faire la deuxième partie j'ai refusé ndax nit ñi dañ ma woon ni ma waa mari ma de yow lii ñun ñu koy raxase ndab di ko reyee suñu téñu doom yi yow nga jël ko naa ñu lekk leen ko ma daal di daw nit ñi ma ko doon defal c'est fini on arrête parce que nit ki wu nga xam li nga bëgg c'est pas l'argent qui doit nous téléguider ou omnibuler notre notre existence dañu war xam li ñu bëgg xalé yi nañu xam li ñu bëgg parce que gis naa ñu théâtre jékki-jékki passé tout à fait à côté de la plaque